bonjour alaykoum jigéen Sénégal ma ngi nuyu ñëpp ka ci gën ndaw ba ci ka ci gën mag di leen wax euh, bonne fête ndax tay moy journée internationale de la femme euh, comme ni may faral di wax rek hein nit mom kenn du ko xébal bëssam ndax mom rek la am donc euh, profitez-en bien